son appel au respect strict des recommandations et de toutes les mesures de prévention individuelle collective ñu lire leen communiqué bi joxe tey situation bi tey alxames ñaari fan ci weeru avril ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat wu examen yi xamante ne moom laa leen di jox léegi si téeméer ak ñaar fukki ak ñaar ñett téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari test juróom ñoo si positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey ba su tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé léegi am nañ téeméer ak juróom ñeent fukk juróomi cas fii ci senegal juróom fukk yi ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi fi suñu borom jële ak benn cas bu ñu évaluer bu ñu évacuer may yëgal ne fi mu nekk nii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk si hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demandé ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën ko gagné Mesdames, Messieurs, chère euh, population du Sénégal et chers euh, étrangers qui sont parmi nous ici au Sénégal, j'aimerais aujourd'hui le 2 mars, vous vous souvenez, nous avons eu au Sénégal notre premier cas de Covid-19. Aujourd'hui, 2 avril 2020, donc un mois après, il m'est apparu nécessaire de partager avec vous les dispositions qui ont été prises les actions majeures qui ont été menées de la riposte au Covid-19. À cet effet vont se à cette tribune le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Alpha l'administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fan, le professeur Mamadou Diarra Bey, directeur du SAMU national. Leurs communication porteront essentiellement sur la coordination des opérations de riposte la détection au laboratoire et la prise en charge des cas confirmés. Cet exercice sera mené tous les mois jusqu'à la fin de l'épidémie. Il s'agit donc d'une évaluation à mi-parcours. Avant de donner la parole à mes collaborateurs, je voudrais saluer le travail remarquable que les personnels de santé sont en train d'accomplir et leur exprimer mes forts encouragements. Je voudrais également saluer le professionnalisme de la presse sénégalaise, qui est à nos côtés depuis le début de l'épidémie. J'exprime à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes remerciements et mon soutien pour son soutien sans faille depuis le début de cette euh, épidémie et en mon nom, le personnel de santé lui exprime toute sa reconnaissance. Je remercie mes collègues du gouvernement ainsi que l'ensemble des Sénégalais et des partenaires qui nous soutiennent dans cette lutte. Je vous remercie de votre attention. ma tënk li mu wax léegi rek si wolof 2 mars 2020 la ñu amoon fii ci réew mi kaabu njëkk bi ñu am ci Covid 19 boobu ak léegi bés bu jot ñu taxaw ak yéen pour jox leen situation wu bés bi di ko def ak leer di ko def ak dëgg di ko def pour que dara bañ leen ci ump boobook léegi nag def nañu weer. parce que tey la le 2 avril 2020 ma ànd ak ñenn ñi gën a ràññeeku si ñi si liggéey ñu war a ñëw taxaw fii wax ak yéen docteur Ablaye buso bi xamante ne moom mooy directeur bu centre des opérations d'urgence sanitaire mooy njëkk ñëw waxtaan ak yéen si mbir bi bu paree docteur Alpha Sall directeur de l'Institut Pasteur de Dakar moom itam dana ñëw waxtaan ak yéen ci mbir mi ci li ko jëm li jëm ci moom bu pare professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse de l'hôpital fan dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci paj mi bu paree professeur Mamadou Diarra Bey directeur sami national dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm ci prise en charge ci wàllu réanimation ak lu si jëm seen communication nag ñooñu li ko doxe jog mooy leeral bu leeral lu bari parce que def nañu weer dafa jot ñu def lu ñuy wax bilan à mi-parcours parce que weer wu jot rek bëgg nañ yéen waxtaan seek yéen di ñaan dëkk mbir mi gaaw fi yem pour que ñu delluwaat bu baax a baax a baax si suñu yitte si suñu tayaayu xel avant ma leen di jox kàddu gi dama bëgg a taxaw bu baax encourager leen personnel de santé bi parce que li ñuy def wax dëgg yàlla sagal nañ réew mi ñu ngi leen di encouragé di leen wax ne président de la république mu ngi leen di félicité di leen encouragé may remercier di féliciter la presse sénégalaise parce que mbir mi ba mu commencé ba léegi wane nañ ci professionnalisme responsabilité ak xarañ bu wóor ba tey dara umpul sénégalais yi ci li ñuy liggéey loolu laa ne woon danaa leen ko wax di leen gërëm encore une fois di demander le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, mu ñëw taxaw waxtaan ak yéen ci wàllu liggéeyam.